أو تعريه في كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على آخر ما أنزلته أو ريب أو سكن أو تعجيل حين تلاوة أو كزن أو شرعة أو شق لسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدق أو إشحار بغير بيان أو مد أو تصدير أو حمزة أو حيز أو إعارة بغير مكان واكتمنا على التمام والكمال والمحسن من كل الحال واغفر لنا يا ربنا يا سيدنا وتقنا يا من وفقنا فضل من قرأ مؤديا حق مع الداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والشهادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والسخاوة والضلال والطغيان والنبينا قبل المنايا عمنا من الخفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال المنكر ونكير من أكل الديدان وبيد جوعنا يوم البعض وأعطي رقابنا من النيران وأبي ويمين كتابنا ويسرع حسابنا وسقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على صراط واسكنا في وسط الجنان ورزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ضيان استجب دعانا بحق التوريد والإنجيل وشبور الفرقان أعطينا جميع ما سألناك به في السر والإلحان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 wa daxilnaa jannata ma alquran warham jamia ummati sayidna mahamad bi xaqi alquran allahuma jal alquran lana fi dunia qarina wa fi lxabri munisa wa fi lqiyam sirran ala sirati nuran wa ila aljannati rafiqan wa baynana wa bayna nnaari sitran wa ijaban wa ila alxayrati kulli hadali wa imaman fadlik wa judika ya akram alakaramin allahuma ihdina bi hidayat alquran wa awina bi hinayat alquran wa najjina min anniran bi karamat alquran wa dafalna jannata bi shafaatil qur'an wa rafa'na darajatina bi fadli lailatil qur'an wa kaffir anna sayyi'atina bi tilawatil qur'an ya zal fadli wal ihsan allahumma arzuqna bi kulli harfin min al-qur'ani halawatan wa bi kulli kalimatin karamatan wa bi kulli ayatin shahada wa bi kulli suratin salama wa bi kulli juz'in jasaan wa bi kulli hizbin hasan wa bi kulli nisfin ni'ma wa bi kulli rabhin rahfa wa bi kulli zumrin shanan allahumma arzuqna bi alifi ulfatan wa bi barakatan wa bi ta'i tawbatan wa bi sha'i shawaba wa bi jimi jamalan wa bi al-hayi hikma wabilxaayi xila nan wa bidayi dunwan wa bidali sakaan wa birayi rahma wa bidayi sulfa wa bisayni shana wa bisayni shifa wa bishadi sidan wa bitai diya wa bitai tahar wa bitai safar wa bilxayni ilma wa bilxayni qinaan wa biwafayi falah wa bilqaafi qurba wa bilkaafi kifaya wa billaami lutfa wa bilmiimi mawisa wa binnuuri nuuran wa bilwaawi usla wa bilhaadi hidaaya wa billaami alalifi liqaan wa bilyaayi yusra wa sallallahu ala sayyidina wa alihi taahirina ajmain allahuma bali sawa ma xara'naahu wa nuura ma tala'naahu ila ruuxi sayidina muhammad alayhi salaatu wasalaam wa ila arwaaxi ashaabi radiallahu anhum ajmain wa ila arwaaxi jamil anbiyai wal awliyai wal mursalin wa ila arwaaxi abaina wa umahatina wa ixwanina wa tiaina wa azatisina wa masaqina qaasa wa ila arwaaxi jamil almuminina walmuminat walmuslimina walmuslimat alahyai minhum wal amwat ajmaina ama wa ila jamihi al ashaabi alxayrati min almuminina walmuminat allahuma ansur man nasara addin waxsul man qasala almuslimin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 وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لصالحين من الخيرات يا الله وارزق بنا نحجار وسين وكنا شر ورحمة جن وشيطان يا الله وكملا كل ما نمحو ونحصر وعبدنا كل ما نختار يا الله وكن معيشنا من شر حسد ما شر فم وشر عين يا الله وشر شعر وشر الخلق سيما جنهم وسواد سمي الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها كما وعلى فاتحه

jëf ju réy ji nga xam ne dara gënu ko féete kaw te mooy téeréb suñ borom bi ci ay tut tànk yoo xam ni masha Allah mel na ni ku sab xol di yëg lu neex wala muy yëg bànneex wala ngay yëg alquranul karim sa xol sedd na lool kon niñ ko defe woon daaw ñu defaat ko ren nañ ko defe waat déwén te kenn bañ a manqué te suñ borom faj aajo yëpp kenn ku ne sa njàqare li nekk sa biir sa biiru xol tey sa yitte suñ borom mi nga xam ne ku mu fajal aajo nga yëg ko yàlla na faj aajo yëpp macha allah lii am na solo lool ndax dara kenn gënul defal lu gënal sëriñ bi lii te mooy fexe ba buñ koy xool sax ci ndaw daanaka ñi nga xam ne damay xool leeg léeg ci commentaire yi ñu ci bari ci ci jamono ji dañuy wax ni ndaw sax ci jiite gi ñuy jiitaay mu kàllaf ñenn sax dañ ciy jéem a wax dañ ciy jéem a wax dara di ko jéem a ñeenti waaye dama leen di wax neen bu dee critique rek am nañ lu ñu war a critique mooy ndaw ñi ñuy jàngal lu bon mm-hmm. am saa bu ñu xëyee ñu leen di jàngal lu bon ci réew mi mm-hmm. di leen defal concours fecc concours caaxaan mm-hmm. concours lépp loo xam ni neexul sunu borom neexul sëriñ bi ñu ne ci ta bu dee rek wax ci luñ <laughs> looloo gën a yelloo ñoo ñaa gën a yelloo dal ñoo ñaa gën a yelloo dal waaye ndaw ñi ne fii ak ñi ne feneen ci Sénégal gépp te mooy liñ ci jublu rek mooy ñu xemmeem loo leen alquranul karim te xam leen it am na lu leen di xaar maanaam am na lu leen di xaar ci tañ jéem caa te mooy responsabilité bu rëy rëy xam nga ki jël ndaw moom mag yi jëm mu taxaw ci seen ginnaaw euh, ñu ko yaa ñu doy jiite ñu ci alxuraanul karim ak ni mu mel ni mu baree ay rungeeg ak yi ci xew ak yëpp fit wi waxuma sax ndaw li maanaam mokkal gi rek waaye fitu jiite ñi la ñi la mag rek loolu tiitaange gi muy indi ci ndaw bu ci suñ borom dëppul ndimbalam du yomb ci ndaw moo sax nga gis ko léeg-léeg ñu mokkal lool waaye léeg-léeg ñu am foo xam ne buñ ci seen biir te loolu du dara lu koy waral mooy ndawa a mel noonu rek kon nag li sëriñ bi waxoon nañ ci góorgóorlu bu baax te kenn ku ne ci ñun nga doonu sàmm ci ndaw maanaam fexe ba ndaw la nga yor ci sa kër nga góorgóorlu ci bu baax bu fekkee raw na la lu mel nii raw na la nga góorgóorlu ci bu baax boo amee ko wara dem daara nga teel ko yóbbu ca daara ja mu jàngi bu amee ko war a jàngi école yi nga fexe ba mu jàngi nga xam ne ndaw li moom yow moom bu dee rëcc nga nga fexe ba sëñ ba waxoon rek la mu waxoon yaa yor si yaanu la tastaqilu anil huda wa bil ulumi staqilu fastaqilo bil ifsi wa tilaawa waaye nag ñu fexe ba rek waccani bu majaaliha sa saxaawa di leen teet loo jataay yi nga xam ni gënul te loolu nag kenn ku ne yaa ko mën a yaa ko mën a defal sa bopp kon nag ñu ngi ciy profité sax di sant ndax cant gi it doomu aadama ci mbokkum doomu aadama la ndax warul kenn ku ne lu baax li ngay def moom sa bopp rek sëñ Abdou Xaadir dina ko faral di wax amul kenn koo xam ne la ngay def mooy na la képp koo gis muy dox ci àdduna te nangu ni yàllaa ko bind te digal ko mu war koo jaamu tam nangu ko bu koy def moom da koo war kon ku ko ca sant rek wala cant ga sax du war xanaa la cay war mooy jàjji ko mu gën góor góorgóorlu bu baax a baax kon nag ñu ngi ciy góorgóorlu leen ci sant bu baax a baax di sant ñi nga xam ne ñoo fi doon taxaw liggéey bu am solo bii ñu doon def te doon ko def ci koor gi te mooy ñi nga xam ne ñoo doon def muhaadara yu am solo yi te mooy waxtaan ci diine yaakaar naa kenn ku ne ci ñun war nga fi jëlee nga fi la fi tàmbale woon ci sëñ Abdul Lahat ma ko ubbi woon ba ci sëñ Mam Moor mi ko tëj tey waa bu fekkee rek xam-xam ñor na la wala diglu ku baax wala maanaam xam ni sëriñ bi lépp ngi mi ci biir ndax damay wax ni moom wax na ko sax bari ay bari bari bari bari xisaag bari bari waxtaan taxul sëriñ bi jublu ci ba du tax ñu naan diw dafa bari xam-xam li tax ñuy bari xam-xam maanaam mu nit koo xam ne jëmm ji boo ko gisee laata muy wax sax nga xemmeem ko xam ni borom xam-xam la fa kasaratul ilmi bi xayril adabi te bu ànd teki teggin jaalibatun ilal asa wa taxa bi nee na fal ilmu laa bi kasrati riwaaya waaye bala innahu nuurun maa diraaya xam-xam du rek bari wax ak bari nett léeg yooyu waaye dafa am nu muy mel ko ko yor moom ku ko seen muy dem rek di nga mën a xam ni keekat ku matoroye nga ci ci jikko ci jëf ju baax te yaakaar naa ñi ñi fi ne di joxe xam-xam moom euh, wax dëgg yàlla ay roy teef yu mag a mag a mag lañ kon ñu ngi leen di sant bu baax di santit waa daa daayira bi ni ma ko waxee rek du cant waaye day ndokkeel la ndokkeel ndax kenn ku ne li ngay def moom sa bopp rek nga koy defal man ni ma déggee man boog ci li ma ci li ma ci li ci sama xam-xam bu tuuteeg li may dégg te jàpp ni doomu aadama bu ne noonu la war a déggee mooy mbir mu ne dafa am ñu ko suñ borom di jagleel ñoo xam ni ñii dañuy taxaw taxawaayu xeli kafe ñii mën a dem ca waañ wa ñii mën a waxtaan ñii même fi mu toll ni gis nga bu bu lal ndogu jotee sax yow mi jàpp ni léegi xam-xam bi nga yor maanaam yow yaa kawe kiy lal noonu boo seetloo ni muy lale rek bu la ko joxoon yow doo ko man loolay sëñ bi kenn ku ne dañu complément lay doon ki nga xam ni day génne ci poosam it maanaam bi xitmatin aw bi hubbin aw hadiyaati maanaam loolu moom foog mu am mooy nit koo xam danay génn ci poosam di joxe waaye bu génnee ci poosam ba jàpp ni mooma taxul du moom kay dem ca waañ wa toggit bu jàppee ni mooma du tax <laughs> du tax ni moom kon ka koy yekk am na ci responsabilité waaye ñay lalit am nañ ci loolu mooy li ñuy wax balaa dara dara xew rek ak jamaatu rahma mooy mbooloo mu mu bokk fu ñu jëm dañuy dajaloo ki mën a joxe di génne ci poosam ki mën a waxtaan di waxtaan ki mën a naafila bu guddee di naafila ki mën a doon imaam doon imaam bu ñu ko dajee nag ñu doon julit ñoo xam ni dañuy mel ni birig boo jël rek birig ko ci sa ba xam ni kenn ku ne dañuy yëg ni sa boppañ kon daal nañ góorgóorlu bu baax a baax li des nag dañ doon tëj kaamil waaye waxtu koor gi jeexul dafa mel ni tey ji lañ war a gën a laxasaayu ci fan yu mu yi ndax ku ne ku ko damay wax ni dundit boo koy def te am looy yëg ci sa ruux wala nga am looy yëg ci lu baax bu lay tàggu da nga koy yëg kon nag bu lay tàggu da ngay fas yéene yow lu la nga ca doon def xaal ja ja nga nekkoon sax daa war di gën a yokk mooy kenn ku ne tey dafa war a yëg ni kat koor a ngi tàggoo di dem fan yii ñuy dem am na ñu fi nekkoon daaw te nekkatuñ fi man mi yàlla baaxe ci nga xam ne si loo ci def ci fan yu mujj yi am na ci bis boo xam ne mooy bi ñu doon def laylatu xadri bu démb ku ci fanaan jaamu ci suñ borom suñ borom defal la ci loo xam ne mënatoo koo am ci fi ak déwén te mu des it ci góorgóorlu bu baax nii rek tëj nañ kaamil bi tey dootuma naafila ci wala sama mbir de alhamdulilah déedéet des na li des nañ ko màng bu baax a baax a baax luñ ci daan def ci lu baax na gën a yokk ci dundale ci taxawaayu guddi ci xalaat suñ borom jàng alquran jàng xasida yi sikar def lu baax waxtaane lu baax diglu lu baax ndax kan mbokk yi dafa am loo xam ne du jaas ci kenn te ku ne war na ko bàyyi xel te mooy bàmmeel xam ngeen damay damay damay fal wax ne rek nit ku ne war naa mën a doy ci sa bopp boo tëddee sa néeg nga atte sa bopp sa digg ak sa borom wéetaay ba nga fay nekkee te teewul nga taal làmp nekk ci sa lal yow mu xaw a neex yàlla boo am sax télé booy seetaan mu neex lool te du tee sax nga yëg ni wét nga anamu nag bàmmeel bu la lëndëm këriis la la fay wét li mooy perkaal suuf ay sax amul dara loo làmb amul làmp amul dara te ña la fa yóbboon bàyyi nañ la fa nekk fa foofa nag ku xam la fa ne wala nga xam ne ëllëg lool du jaas loo def ci lu baax doyul loo defal sëriñ bi ci lu baax doyul loo defal ngir sa boppi doyul bul ko def ngir kenn def ko ngir yow sa tëddaayu ëllëg ndax am na benn nit ku baax koo xam ni dañuy wax ni dafa am ku ko géntoon gis ko mu ne ko moom day te nit ku baax la ku ñu yaakaar ni ku baax la ku ñu yaakaar tam baax googu mi ngi ci moom lool lool ndax ku daan liggéeyal suñu borom la waaye dafa faatu am ku ko gént gis ko bi muy waxante moom laaj ko ni ko yow day lu lu maanaam fi nga nekk nii lan moo fi xew mu ne ko man day tëddaay bee metti ci man maanaam moom waxagul lañ ko war a def waaye tëddaay bi rek ana ña tëddoon bu yàgg ana ñoom suñu maam Adama ana yonante bi alayhi salaatu salaam ana ñeneen ak ñeneen nañ tëddoon ba nëgë ni xam ne xamoo nu ñu tëdd xamoo ña ngay walbati xamoo walbatikuñ moom mu ni tëddaay boobu mu tëdd rek ci biir bàmmeel waxu nag ñu la war a jàmmaar la mu la waaye looloo yàgg ci moom ba metti ana na ki nga xam ne nag kon demagul foofu kon mbokk yi nañu góorgóorlu te xam ni lu waaye def sa bopp kenn du defal dara dara dara dara dara lu mooy te ku ko dugg foofa da xam ni def lu baax rek amoon solo koo defit ba dugg foofu danga xam ni nekkoon ci lu baax lu sëriñ bi gërëm suñ borom gërëm ko rekk am solo kon nañ góorgóorlu te kenn bañ a jàpp ni lii may def kat a tax déedéet mukk yow jàppal ni daal sa tëraayu bàmmee la tax nga di ko def ëllëg ndax loolu rek moo lay wettali ndax nit ñi moom am nañ fu la ni ñu koy waxee bo maanaam ku fi jógee li ñuy njëkk def mooy bu fekkente ni ci kër gi nga ne ñu lijjanti lu la fa génne doo seetlu nit ñi dañuy gaaw lool li ñuy njëkk def mooy seetlu la fi génne maanaam nga xam ne yow moom dañ naan dootuñu mën a nekk ak yow ci biir kër gi li ñuy def mooy mar buuba wala ñu yóbbu la nga fanaan attunuñu sax mën a muñ yow nga fanaan ba ci suba ñu yóbbu la armée li ñuy def mooy daal na gaaw génn kër gi gis nga bu ñu demee ba bay denc it li ñuy def ñi ci ëppit boo seetloo léegi ci denc yi te miin denc yi di ci demit xam ni yàkkamti am na maanaam bu ñu joxee dog sax ci ñaan dalay lay benn am na ñoo xam ne amatuñ jotuk defal la ko buñ bu ñuy suul sax da ngay gis ñoo xam ne daanaka dootuñu mën a xaar ndax ñu ngi seen xalaati àdduna wala ñu mat gis loolu bi ñu ñëwee ba ci kër yi la ñuy def mooy ceeb beeka neex léegi li xew léegi ci dëj yi macha allah nañ ko defal maafe nañ ko defal mbaxal na am kaani nañ ko lalal fii na am kanet na am boisson nit ñi nekkuñu ci yow mi dem de seen bopp lañ ne lu neex li ñuy lekk loolu seen bopp lañ nekk loolu yëpp nag doomu aadama bu ne war na koo bàyyi xel xam ni lii tax nga mucc ci loolu yaa koy liggéeyal sa bopp kenn du la ko liggéeyal kon ku ne lu fa firoo ilallah góorgóorlu leen jëm ci suñ borom te gaaw lu jëm ci lépp loo xam ne day tax boo demee ci bàmmeel mucc kenn kenn koo xam ne jar na nga bàyyi li li suñ borom gàcc sa digg yow sa bopp amul bu la ko kenn jaral ci àdduna ndax ku la ko jaral rek bis dana ñëw mu bàyyi la baggi sax day yomb lool baggi day yomb ndax boo ko seetloo léegi xool ko boo xooloo tey fa ñuy dencee fa ñuy robee fa ñuy defe yëpp boo xoolee daanaka soo seetloo néew bi bu ci amee lu tuuti la ci am fu nooy laay bëgg a toog doo ko yëg boo demee sax maanaam bu ñuy denc ni sax attan ngaa jël yow toog ci suuf bu ñuy julli sax attan ngaa sumi say daal yëpp yow doo seetlu rek te am ba te xool rek da ngay jàngat xam nit ñi fi ñu toll koo ci këpp suuf mu daal di koy faxas wala mu daal di nga xam ne nit ñi mënatuñoo muñ diggante bi ñuy denc nit yëggatuñu ko mm. te yonente bi alayhi salaam dañu woon ñaar rek laa leen di bàyyee mm. ngeen di leen waar bu ñu demee bu waaratu leen te loolu mooy dee mm-hmm. nee na woon dee bàyyee naa leen ko na leen di waar mbokk yi dee nag léegi waaratul kenn nit ñi moom fa ñuy fa fañ fa ñuy robee rek fa ñuy nàngame rek fa la ñuy gaaw jëm jëm ci lépp loo xam ne seen mbiri bopp la mm. kon nañu góorgóorlu bu baax a baax a a baax ku ne defal sa bopp jàpp ni yow li ngay def daal kenn taxul sa bopp a tax xamit ni sëñ bi ko ko dimbali ëllëg mooy ki nga xam ni bu ëllëgee doo ko tardeel mooy doo ko tardeel mooy du di la layoo la ka dimbalee ko nangam bokk ci ña nga xam ne bu ëllëgee sax da ngay ràmm te ràmm it loolu lu mën a nekk la mooy def def lu baax nekk ci lu baax nañ góorgóorlu ci lu baax te xam ne jamono ji jaxasoo na jaxasoo jaxasoo ba wut lu baax ak def ko te mucc ak jafe lu baax sax nga def ko ba mucc ci jafe na ndax boo koy def ngi sala ngi taxaw jay gaa ngi taxaw lépp a ngi taxaw nga xam ne amoo fenn foo man a jaar boo boo nit nitewul sax da nga yëg ni maanaam nit ñi yow la ñuy waxal déedéet seen bopp rek moom seen bopp rek dañuy def maanaam bu ñu xëyee fii mu dox ñu gontu jàll yow mu ñëw ci yow bul jàpp ni yow déedéet ñoroo leen de seen bopp rek koo seen muy dox tàmbalee ko ci man ak keneen ku mel ni man yitteem ya boo ci génnee jéegoom ya muy dox jéegoom ya muy dox boo ko ci génnee du yow taxoo de booy dox di la seet si wala muy dem di jën boo ca génnee yittee boppam rek dara desu ca koo hmm. seen rek boppam a ko ñor kon nag koo seen ci boppam a ko ñor wallahi gaawal góor góorlu te xam ni du jaas mukk te mooy bàmmeel hmm. bàmmeel mbokk yi lu raglul la lu du jaas la hmm. nañ koy bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax te kenn kenn ku ciy mucc ay na yonante bi ay na ñu baax ña sahaaba yi ay na sëñ Tuubaa ay na ñoom maam Thierno ay na ñoom Cheikh ñooñu suñu borom defal leen te tey ñu ngi ci biir suuf kon nañ góorgóorlu te xam ni loo xam ni kenn du ci mucc góor góor lu ba la nga xam ne lu baax la nga doon dem gën cee góorgóorlu bàyyi nelaw yi bàyyi sàggan gi bañ a romb nit ñi ah gars yi de ñoom ngi julli ji man xaaral tuuti nga xam ne yow jëralu ko mukk ña ngay diglu ji alxuraan yow jëralu ko sa sa sa bët maanaam yegg ci summun om yun nga xam da nga tëx muuma ci dara lu baax lu ñuy def lu nga ci amatoo loo ciy dégg bëggoo ta sa yoon nekkatu ji bu ñu joxe sax nga ne ah gars joxe